xam nga nag Awoush damay dégg ay ñu bëri di génn naan yenn tur yi ngeen di tudd et tout ça il faut que ma leeral leen ci yëf nit ñi xam lan mooy loi maanaam suspect dafa dafay loo xamante ne justice mënu ko ñàkk tey Awoush man ak yow bu ñu ànd su dara xewee mooy justice man lay njëkk def suspect rawatina su fekkee maag yow ñooy bokk di fréquenter et tout ça justice man lay njëkk woo man lay déglu suspecté nit nekkul accusé xam nga nag peut-être yi dañoo am problème mu yi. ba ku ci nekk yenn interprétation yi ni ñu koy defee mais dañuy faral di wax ne su dara xewee d' abord soixante douze heures balaa bis bi soixante douze heures après bis bi ñi nga xamante ne ñooy lëkkaloog ngeen ñi ñooñu il faut que justice mu woo leen il faut que justice mu xool leen il faut que justice mu saytu te boo dee seet ki nga xamante ne mooy Aziz Dabala dafa am ñu ko jege woon ñoo xamante ne moom la ñoom la daan nekkal de temps en temps te ñi si gënoon fës bokkoon na ci Soukayna bokkoon na ci ki nga xamante ne mooy Yérim bokkoon na ci Maguette Seck par exemple ay ñoom Boga mais bokkoon na ci xale bi nga xamante ne tey moom moo génn na muy waami et que ñooñu la ëppoon ñoo xamante ne dañuy fréquenté ak ñoom rawatina nag fee bi am ay nit dañoo wax olof dafay faral di wax ne bu dara xewee rek ku wax mais yenn wax yi il faut que ñu comprendre que ne yenn wax yi dafay baax sax pour justice parfois mu mun a am ay piste d' xam ne nit ñi wax nañ mu déglu leen loolu dina la dina ay suspect ba de telle sorte que dina mun a woo ñeneen ñi wax mais xam nga wax yi am te xam nga aus man sincèrement dama dama dama am jàngat boo xamante ne dama ko jàngat ci bi ma déggee ne par exemple kii di Soukayna nekkoon na kër euh, ki nga xamante ne mooy Aziz samedi bi ci boppam ba rawatina aussi dimanche bi nga xamante ne Aziz dafa feebar moom moo ko gunge moo ko yóbbu hôpital bi muy ñëw moo ko tayle kon donc kooku ku taxaw ci Sénégal naan justice waru ko woo dama yaakaar da ngaa xam lan muy loi ak lan mooy yoon. dèjà kooku kon dafa bokk ci premier suspect yi nga xamante ne justice war na ko war na ko laaj mais na ñu gën a foofu fekk ne diggante samedi bi dafa nekkoon na ñoom bien fekk ne samedi bi man dama ko dàq xam naa ne samedi daa xew fa li xew awus mu ngi commencé ci dimanche lundi mardi et que lii xew dëggantaan mu ngi xew lundi dinaa si ñëw léeg-léeg taxaw seet li tax ma ne li xew mu ngi xew ci diggante dimanche lundi mardi dimanche Aziz dafa feebar ñu dégg xaritam mu wax ne nekkoon nag Aziz ba 19 heures après la dem. et que kooku mooy premier suspect bi may wax kook li tax ma def ko premier suspect Awus kooku dafa wax benn wax boo xamante ne naka la yow Awus nga nekk sama xarit nga feebar ba ma mën a nekk ak yow mu waroon mën a am ñàkkare yow nan laa la bàyyee ci yan coono nga nekk rawatina ñu nekk ci wàccaayu màggal ñu xëy yow mi nga xamante ne maa nekkoon a yow ba 19h ci sa tawat ci sa feebar lan mooy ndeyu bi ma xëyee woowu ma la xool noo def xoolaanu ma noo def. màddi wowuma la xooluma noo def xoolaanuma noo def bañ a may woo man di ma yëgal que ne ana diw wala diw ñàkk na ba kanam dèjà benn ngi noonu il faut que ça soit clair pour ma wax la rek yenn yi nga xamante ne pour ma wax la yoon piste yi muy jël li tax ñooñu ñu leen di woo ak enquête yi dañuy laaj ba xam amul complice ak amul leneen beneen bi mooy aws xam nga ndeysaan ñi ñi ñi dëkk moom bi ñu waxee boo dégloo li ñu wax rek da ngay am ay piste parce que dëkkandoo bi nga xamante ne moo doon wax Sen TV ki nga xamante ne dafa jëloon kanam gi nëbbu ko soo ngeen ko bàyyee xel bu baax xaw ma ba xam seetaan ngeen ko kooku dafa confirmer que ni gis na kii di euh, Aziz samedi bi mais dimanche gis na Waly ci balcon bi kon nag samedi moom jeex na samedi moom munu munuñu séddee maanaam suñ doon dee par exemple dimanche lañ doon dee mais xam na li garaaw dafa am benn vidéo benn xale boo xamante ne xaritu Waly la ñoo bokk di liggéey mm-hmm. bu mu def sorti waat li gën a foor wax ne Wally gis na ko lundi bi lundi bi liggéey si na moo tax man dama dàkk sax dimanche bi mais damay wax ne lii dee parce que lundi boobu lañ dégg ci témoignage ñi si kër gi ñooñu nga xamante ne dañoo def fuite parce que def nañ non assistance à une personne en danger te yoon war na leen mun na leen daan pourquoi parce que dañoo confirmé que ne dégg nañ crime ñaari yoon dégg nañ ay yuuxu huit dégg nañ yuuxu ay seize heures mais xam nga li garaaw ci yëf yi awus rey bi dañoo def différence que ne diggante sept heures quarante trois minutes la ñoom ñaar la ñu am différence maanaam dañoo njëkk a rey nit ki ki ñu maanaam bi ñu rey bi ñu rey ki nga xamante ne moom mooy Aziz Dabala waali bi nga xamante ne la ñu reyaat diggante ñaari rey dafa def sept heures quarante trois minutes léegi xam na li garaaw si sept heures quarante trois minutes boobu ki doon def témoignage moo ne ci biir kër gi dégg na ay yuuxu huit heures de déggaat naa ay yuuxu 16h diggante 8h ak 16h 8h de temps moo nekk ci diggante bu dee 8h et quelque la wala 16h donc ce qui veut dire que ne suñu waxee 7h43 minutes xel daf koy war a mun a nangu si ñoom ñaar seen deewu différence woon mais li xel gën a nanguwaat mooy xaritu waale bi confirmé que ne waale liggéey si na donte tardé na mais waale dafa teel a wàcc ci kaw pour dem fóoti gi ay yéram xaw ma pour waajal bay confirmé que ne. Euh, Aziz jox na ko paas ba xarit bi ne moom dina ñëw sax Aziz jox ko paas léegi nag dama la bëgg wax ne li xew foofu mooy dama jàpp ne Aziz Dabala kii en fait Waly gis na ki nga xamante ne moo dugg ci biir kër gi laataa Waly di dem man gëm naa ne Waly gis na ki dugg ci biir kër gi xam so ku ma xam la Waly ku xam kooku la cest à ku ko ku xam la dëggantaan koo xamante ne gis na ko bi mu dugg see si biir kër gi amaana sax moo ko ubbil bi mu demee bàyyi na fa Aziz rey nañ Aziz léegi nag ci reyu Aziz laa bëgga ñëw un tout petit peu en tant que psychologue dama jàpp ne tey dafa am wax yu am dañoo dégg xaritu Aziz wax ne papa Medina war na leen yónnee xaalis pour mu wax la li garaaw xam nga yuuxu nag mun na jub fu ko foogewul parce que en matière de crime sa xarit xakkan sax mën na la bañ a rey mais mën na la jaay mën na doon complice ci fait bi mën na la tayle loolu la ñuy wax tayle cest à mooy ci waroon est-ce que règlement de compte la est-ce que du dafa jël si xaalis nan lañ def lan moo fa xew et foofu laa bëgg rebondir un tout petit peu comme ça vous allez dama jàpp ne waa ji Aziz ci ni ko nit ñëpp seedalee borom fit la bi ko ñëpp seedale que ne du séddee bi ko ñëpp seedale que ne borom jom la dama yaakaar ñaar am fa foofu ñaar kasi ñu am en tant que psychologue je le soit Aziz ki jël xaalisu wéebam boobu c'était un quelqu'un bu xam côté ba de manière très rapide et facile wooy ila beneen concept bi mooy c'est un quelqu'un qui l'a forcé qui l'a massacré qui l'a torturé qui l'a menacé qui pour lan pour mu mun a am li nga xamante ne mooy côté wéeb léegi nag foofu peut-être looloo mënoon indi ay jiita ngaas looloo mënoon indi problème ma yaakaar ne waa ji cest pour jot am accès ci wér bi la mun a xokkatal Aziz la mun a bun a xatal Aziz et il faut toujours se rappeler que ne daa feebaroon parce que loolu la ñëpp wax ba mën a dem hôpital jël perfusion la faiblesse bi Aziz war a am foofu il faut que ñu xam ne soit Aziz moment boobu dafa nekkoon en période de faiblesse ndax daa feebaroon kon xëy na xel mun na nangu même bu doon bu doon woon borom doole nit mun na ko ñëw dinaa ñëw coup bi benn nit moo ko def wala ñaar nit moo ko def wala ñetti nit moo ko def peut-être yooyu dinaa si ñëw tuuti mais dama bëgg a xamal rek que ne Aziz Sadi c'est un quelqu'un qu'on a torturé avant de la euh, avant de le dañ ko torturé dañ ko xoppatal dañ ko bëgg xatal. dañ ko métti foofu doguma la ah. bi. Ah. am na benn enquêteur bu ne. Mhm. yaa ngi dégg dama bu baax. rey bi ah. am na ay jigéen am na ay góor. Mhm. te man loolu démb waxoon naa ko. c'est possible. te ay xaritam parce que Aziz Dabala këram ku mu xamul doo fa dugg. gis nga Aziz dañ koy yàgg di ko menacer gis na magam bu jigéen xaw ma bu jigéen ba muy def interview xam nga lu mu wax mu ne en l'espace de deux mois Aziz tuxu na si ñetti yoon. tuxu na mais dañuy waxtaan rek nit koo xamante ne amoo problème ak kenn di tuxu ñetti yoon ci deux mois. te ñi ko rey. ay xaritam lañ te instant bii may wax ak yow police ñi mu jàpp ñëpp ay feccikat lañ moo tax ma leen yuuxu dina jug foo xamante ne foogeewuñ ko te ñooñu ñu si jàpp ñëpp. gis nga gis nga ñi rey Aziz ak ñi nekk en complicité ci rey bi ay nit la yoo xamante ne ñu ngi doon lekkandoo ak Aziz ñu ngi doon naanandoo ak Aziz dama bëgg ñu waat c'est-à-dire Awus dama bëgg ñu waat feneen mooy li tax ñu rey Waly laale leen expliquer maanaam li tax ñu rey Waly man dama jàpp ne dañoo rey Aziz xam ne waali moo leen tijjuloon wala waali xamoon na ñi fa nekkoon wala xamoon na ki fa nekkoon ñu xam ne trace la ñuy bañ mu jàll waali jour buñ ko laajee wala mu ñëw gis ne euh, euh, Aziz dee na dinañ ko laaj kan moo ko rey kan nga fi bàyyi woon ñu ne non dañuy rey booy bi li tax na booy bi deewi jee si salle bin bi peut-être foofu man leen laa jàpp mooy booy bi dugg na rek ñu heurtal ko mu daw biir salle de bain ba c'est-à-dire du ko ñu yóbbu salle de bain yaakaar ne dafa ñëw ñëw ñu heurtal ko xokkatal ko mu yaakaar ne dafa war a daw lakk fi ji salle de bain ñu fekk ko salle de bain et bi ngay dégg femme bi témoigné si biir kër gi nee na dégg na yuuxu vers six heures ñetti yoon wuy sama ndey wuy sama ndey wuy est-ce que c'était pas les trois coups yi nga xamante ne moom lañ def ci biiru xale bi ba muy wax buy sama ndey wuy sama ndey peut-être foofu beneen ak it boo xoolee maanaam waa ji peut-être lan la dafa rey dafa rey kële mais xam nga ki ngay rey sàng ko il faut que ça soit clair un crime nag n'est jamais parfait mais c'est-à-dire waa ji programmé woon na su amul li mu bëgg daf koy rey c'était un coup déjà maanaam yëpp scénario bi dañ ko programmé du loo xamante ne daf lay surprendre on l'a programmé programmation mënul weesu waa ji mën a rey nit à huit xaar kenn koo xamante ne daa demoon liggéey ji ba seize heures ñëw kooku ñu wàcce ko parce que moom xam ne ne soxlootul affaire yi am trace te leen rek la mun mooy jour bu génnee te booy bi ñëw si ginnaawam mënul jël koor bi wàcce ko parce que xam ne ne mënul jël koor Aziz wàcce ko ci biti mënu ko jël sànni ci te heure boobu bëccëg lañ ko rey kon il faut mu xaar kër ñëw mu escanté ko ba pare li garaaw mooy kaawu Soukeyna Euh, magu Aziz bi daf ko dugal. daf ko dugal xam nga ko dugal dugal ndax li tax mu dugal ko mooy yow da ngay bëgg a seetal nit nga dugal ko à la fois parce que man en tant que psychologue dama mënul comprendre que ni yow naka la ko jigéen ki ne la ne mu ngi woo Aziz depuis deux jours mënu ko jot mais yow ki ngay woo mënoo ko jot nga am intention ngeen daaj certes dëgg la mun ngeen daaj mais lu tax yow nga ne bi nga duggee yow da ngaa faible yow góor mais su kay na moom moo la wax ne demal xool salle de bain lan moo ko jox reflet direct mu war a dem xool salle de bain bi qu'est-ce qu'il lui a dit dafa nekkoon ci scénario bi dafa nekkoon présent dafa fekkoon parce que wax bu subit la mooy moom waa ji bi mu duggee faiblesse la santé mais on l'a orienté direct demal xool non en fait c'est demal xool ji salle de bi moom moo ko wax te pourtant mu ngi doon protégé Soukeyna pour wax ne dafa ñëw assister mais qu'est-ce qui ak ban reflet moo jox Soukeyna ki gëj gis Aziz deux jours wala trois jours ba kay woo dugg ci néegu rek. xalaat directement ne dama xool ji salle de bain. Euh, te te te Soukay moom moo forcé pour ñu daj kër gi. pour ñu daj buntu bi. effectivement menuisier bi yëpp moo koy moo forcé pour ñu mais ba tey ba tey ba tey je ne dis pas que ne pour ñuy wax ne non ya ñi damay dégg yenn Sénégalais yi ñu naan non yéen ngi accuser Soukay ne tout ça il faut que gars yi comprendre une chose on n'accuse pas mais suspect dafa am. et quand on fait des analyses il faut des suspects dañuy suspecté mooy dañuy jàpp ñii munuñu see génnee seeni loxo dafa mel ni comme kooku xaritam boobu woo woowoon papa Medina mu war leen a yónnee xaalis kooku tey mun nañ jàpp ne moom est-ce que yëgul ne papa Medina boobu yónnee na xaalis est-ce que demul defi ji règlement de compte est-ce que laajte jiwul paaram au moins parce que boo xoolee euh, rakko Aziz bu jigéen mu ngi wane audio sax bi nga xamante ne Aziz bi mu leen yónnee xaalis dafa def audio pour expliquer na la ñuy séddoo xaalis li dëggal ne Aziz jox na ko paasu màggalam ba xaritam bi muy ànd ak liggéey xaritam bi nga xamante ne moom la ànd ak liggéey la leen di ne dina jël si paasu màggalam donc traçabilité yi dafay feeñ mooy même partage su xaalis su amoon trace yi ñoo ngi feeñ léegi nag ba xam dañoo jël xaalis ci web bi peut-être loolu justice moo ci gën a mën a joxe une confirmation ba xam dañoo virer compte bi justice moo ci mën a génne confirmation mais quoi qu'il advienne il faut ne waa ji dugg ci kër gi l' objectif c' était que ñu ci Aziz et jël dara boobu peut-être bañ bañ ko moo tax ñu rey Aziz et comme rey nañ Aziz waali fekkoon na leen fa wala waali gisoon na leen dañuy rey waali pour waali bu ñëw loolu c'est-à-dire maintenant léegi nag wax ji mooy diggante ñu koy fréquenté parce que dama gis que ça soit muy ñoom Bouga muy muy que ça soit ñoom de Yérim que ça soit muy ñoom Soukayna da nga gis bi yëf yi amee rek ñenn ñi dañoo def fuite de responsabilité ci ñi dañoo teel attaqué média yi maanaam comme si ñoom ñoo def média yi pour se justifier et rek s'accuse dafa am yoo xamante ne surtout lu dem ci yoon yow période bi dafa mel yow yaa ko programme yaa teg ku monté yow yaay yëgal askanu Sénégal yaa génnaat si médias yi yow yaay wax ci médias yi lan moo xew qu'est-ce qui les a à le faire li tax ñoom ñuy jëmali nga gis que ne parfois si ñoom wax yi ñuy wax da ngay sentir que léeg-léeg nga déglu nit mais xam nga tey ki nga déglu mu ne la man ak Aziz ñoo nekkoon ba 19 mais kooku mooy ngan nu maamu suspect boo nekkee nit ba 19h nga confirmer que bi dafa feebar. yow nga dem toog ba trois jours ñu lay woo di wax ne nit bi dee na te woo ko beneen te nga ne sa xarit xàkkar la yaa ko confirmé ba mën a nekk ak moom ci tawatam nekk biir këram nga xëy woo ko woowaatoo ko beneen jour bi ba ñuy wax la ne dee na boobu noonu kan moo ko rey kan ak kan ñoo ko rey ñan ñoo ci duggoon ñan ak ñan ñoo yëg affaire bi est-ce que du woon affaire bi wala kan moo fimuteloo xaalis bi lan moo ne mais quoi qu'il avait il faut comprendre que tax ñu rey Aziz xaalis daf cee bokk. man bu nit ñi di ma message naa ma da ngay accusé du ma leen faale parce que man accusé wu ma kenn. non du accusé suspect dafa am ay suspect mhm. ñëpp mën nañ rey. suspect yi da ngay dimbali pour ñu mën a xam ñan ñooy suspect yi parce que borom kab bi xam nga yóbbu nañ ko. Mhm. boog borom rastay bi yëpp dañoo ne 19h ñoom ñaar ñëpp 19h lañ wax. Mhm. kii dafa ne 19h la mujjee dégganteeg moom kii da ne 19h la mujjee gisanteeg moom. te euh, borom kab bi moom dafa bëgg lëndi. mu neutre te lënd lañ fay Aziz. lënd bëggul woon lënd dara xew ci lënd bi. si woon dara xew ci lënd bi. absolument. parce que dafa ne lënd bi moom dafa nekkoon moom dafa woo Aziz jotu ko mu bàyyil ko message. Mhm. yaa ngi may dégg. Mhm. ci mardi bi nee na euh, bañ ko bañ ko nee kañ ko yëg mu ne ci mardi bi la ko yëg mu ne moom ci lënd bi dafa nekkoon ci wàccaayu safar kii màggal gi amul woon temps. Mhm. te amul woon connexion. Mhm. boo amul connexion nan ngay def pour bàyyi message nit koo xamante ne da nga ko woo tam nga ne sa xarit la da ko bàyyi mu feebar. Mhm. te man affaire je n'accuse personne mhm. mais affaire Nabou Leye dafa yóbbu Kërza hôpital gëmuma ko. gëmuma ko. parce que mënuñu euh, nit mënul gisanteeg nit 19h. entre 19 ak 20h Kërza mënu dem hôpital ba ñëw. xam nga lu tax ma dàkk hôpital bi man mënuma gëm ne Nabou Leye xaritam la. xaritam keuse la ba def koy fréquenté nga yóbbu nit hôpital nit bu feebar nga koy tayle di ko wàccee ci yoon bi. vraiment. dama foofu moom moom laa njëkk a dàkk waxu hôpital ba man dama yàgg wax ne gëw ma ko. xaw ma nit a ko wax ci xalaatam mais mun mënuma gëm ne da nga yóbbu ko feebar hôpital yow kooku feebar nga war ko déposer ba ci biir këram. ndax sa wëla donc ci feebar mais xanaa ku wér nga sax waroo ko tayle rawatina nga ne da ngaa jëli nit bu feebar boo yóbbu hôpital te yaa jël engagement yóbbu ko kon boo ko indi waroo ko tayle man moom foofu moom sincèrement sama conscience moom mu mayul ko ne mun naa accepter ñu tayle. xoolal foofu sax sori na le simple fait que nit ku feebar nga bàyyi ko ci yoon bi pour mu ñibbi da nga nekk meilleur ami woom loolu sori na. non te fi ngay jaar di ñibbi muy bunt këram yow dangay ngay romb technopole yow fi ngay jaar di ñibbi da koy romb. xoolal. xaritam bu solkab bi dafa ne 19h la mujj gisante ak Aziz entre 19h beneen borom tuñ yi nee na 20 la Aziz ñëw ak taxi te moom moo fay taxi bi 2000 francs entre 19h ak 20h dem clinique xaju fa perfusion xaju fa ba jëlaat taxi ñëw ak embouteillage yi nekk ci banlieue waxuma la Dakar waxuma la euh, Sénégal sax de ci biir banlieue bi embouteillage yi fa nekk. en euh, euh, laps de temps 19 heures ak 20 heures dem hôpital perfusion xëy fa loolu moo tax ma ne leen clinique ba amul du dëgg na bu yóbbu ko. non clinique ba ku monté la nee naa man gëwuma clinique ba non gëwuma clinique ba de xam nga tax ma clinique benn perfusion bi gën a gaaw ci kaw suuf perfusion bi gën a gaaw durée lu mu dee dee une heure trente la. billaahi. te diggante distance tracée bi ñu war a dem lu mu dee dee bu gaawee ba gaaw une heure de temps wala trente minutes la ñoom seen diggante bi seen abscisse bi matul deux heures temps. ak non en fait c'est-à-dire heure bi ñu joxe heure bi ñu dem ak heure bi ñu wax matul deux heures de temps kon foofu lan moo xew foofu amul loolu benn benn bu ñu monté bu ñu teg la foofu moom sincèrement man gëw ma ko non en fait gëw ce que ñu waxaat ko wax bu leer mais wax bi ñu njëkk a wax ma dégg ko gëw ma ko cest à en tant que analyste gëw ma en tant que psychologue parce que dama jàpp ku feebar ba ñu war la perfusionné ñi daan tàmm non dafa dañoo ñoom ñu tudd baatu perfusion Aziz daa dem ñu jël ay perfusion mais ki jël perfusion xanaa une heure de temps lañ ko perfusionné wala une heure trente su dee une heure de temps rek lañ ko perfusionné bi xanaa lu mu gaaw gaaw gaaw vous avez fait au moins trente minutes. billahi non dire xel quoi xel xel lu mu nangu moo tax man côté heure boobu moom xaw ma soit mun ne xëy na nag dañoo juum ci heure bi parce que parfois par la pression nit bi mu nax yooyu mun naa leen ko baal mais y a des détails yoo xamante ne munu ma leen ko baal c'est-à-dire ça a prouvé que ne moo c'est-à-dire ça a maanaam coup monté la wala wa ilaa ku ci nekk mu ngi bëgg a génn pour jéem a victimiser wu pour wane ne affaire bi metti na ko li tax ñu teela wax xam nag di garaaw mooy dañoo teel a wax yëfi yi dañoo teel a wax alors qu'il s'agissait de crime et boo leen déggee ni ñu doon waxee comme si c'était de personnes ku ci nekk da ngaa daw sa responsabilité te si Aziz ku ci nekk da nga te ñu doon fréquenter kër gi la matin bi na en fait night ngay nekk ci benn kër dara xew fa mënoon naa comprendre que ni sax non démb ñoo fanaan wala kii sa suba mais cest à ñoom ñëpp comme si ba pare li li na def bi muy ñëw pour ñu dajjulu kër yi dafa wax benn wax maanaam depuis berki démb ba tey xaw ma depuis de maa koy woo jotuma ko. très xam nga wax boobu dafa garaaw comme si maanaam wane na nag gëj na ko gis. ma détaillé ko fàtte woon naa ko. daf ko dëggal dafa dëggal ne gëj na ko gis. c'est-à-dire foofu maanaam il faut que gars yi comprendre foofu dafa dëgg ne comme si kuy wane ne ku ñuy wane ne gëj na koo gis xam nga nga affaire nit boo yóbbu hôpital dimanche yow yaa wax dimanche mais bi nga wax comme si da ngay expliquer nit ki ne ça fait deux jours ou alors que ñëpp xam nañ rey bi diggante altine la xew dajji nañ bunt kër gi euh, dajji nañ buntu bi mardi loolu c'est pas deux jours donc c'est dans quarante-huit bu bëree ba bëri te bu dee ci ci bëccëg lañ daaj yi kon donc vingt quatre heures la est ce que loolu vingt quatre heures mooy benn fan loolu diggante benn fan boo gëj a gis nit est ce que yàgg na ci explication bi maanaam seen expression vocale yi moom moo xaw a am problème te ni ñu koy waxee moo amul soutenance et que yooyu su fekkee ci loi la suñ leen di déglu dañuy xam ne ne dafa bëri ay contradiction ñoom ñooy wax ñooy weddi seen bopp ñooy bëgg a layal seen bopp mais lu ci mënti am mooy mënuñoo accuser man du ma en fait ma du ma accuser ni daa ah. mais mun nañ am nag ay soupçon ci yenn ñi ni ñuy waxee en tant que ay borom xel yu sell et que mun nañ wax ne tey mun nañ leen suspecté te loolu la yoon di def yoon daf leen a suspecté yoon dafa jàpp ne ñoom ñooñu xamante ne ñoom ñoo wax xëy na ñoom ñi ko wër tey ñii ñi jàpp ñëpp yóbbu leen ku ci nekk xëy na am na benn link boo xamante ne am nga ko ci yëf yi ngi def enquête am l' mooy nañ bàyyi yoon def liggéeyam mais man dama jàpp rek ki rey euh, Aziz mooy kii rey Waly te li tax mu rey Waly mooy soit Waly gis na ko dem na liggéeyi rey na Aziz ci ginnaawam xam ne ne su Wally ñëwee boo xoolee ci biir néeg bi dina xam ne ne diw laa fi bàyyi woon donc il faut que mu xaar Wally mu ñëw su Wally ñëwee moom itam mu rey ko li tax ñu war rey Wally ci salle de bain bi dama jàpp ne soit day fu dugg ñu harcelé ko dàq ko mu daw yaakaar ne foofu mooy yoon mu dem dugg ji foofu ñu rey ko foofu poignardé ko foofu et que beneen bi mooy li a mooy ki rey ah, ah, ki rey da nga gis ne def ko sang def ko muur et tout ça mais un crime n'est jamais parfait xam nga c'est-à-dire sang bi muur bi pour nëbb woon na c'était juste pour nëbb mais il faut juste comprendre que ne dafa bëri ay contradiction yoo xamante ne am na ci yëf yi alors que beneen bi mooy justice waru woon woo euh, ñi nga xamante ne waroon na woo waa kër googu parce que non assistance à une personne en danger dafa am te loolu complice lay doon ndax boo déggee yuuxu huit nga dégg ay yuuxu ci kër goo xamante ne yaa wax ne ñaar ñi fa dëkk te amuñu xuloo kon am na lu leen rax waroon nga dem ci lieu bi xool lu xew maa nga woo à la police wan ne si biir gi ñu dëkk am na ay bruit yu yu ñuy dégg te mosuñu koo dégg kon soo xaaraatee ba 16h nga déggaat même bureau yooyu te woowoo police da ngaa bàyyi ba yi am nga wax mun nañ la jàppee comme complice wala mun nañ la jàppee comme koo xamante ne da ngaa def non assistance une personne en danger parce que li waroon mooy numéro policier ñëpp a ko am numéro gendarmerie yéen ñëpp a ko am numéro euh, kii nga xamante ne ngeen amee problème c'est des numéros verts yoo xamante mun nga toog woo ko loolu du dara même bu ñëwee yaa may dégg alors ma ne dogguma la de loolu mooy problème mu Sénégal actuellement là parce que amuñu suñu déggee benn affaire waaw si si Sénégal Nabou Nabou Leye arrêté nañ ko kay ñu ngi koy déglu mais audition la nag mais kenn bàyyeegu ko amuñu benn numéro vert boo xamante ne bu ñu déggee dara lu suspect mën nañ woo numéro yooyu te te Sénégal tamit mënoo woo numéro vers quinze minutes mu yegg si parce que tali bi ils ne sont pas disciplinés composé 17 pour la police composé 18 vif nga gis bii nga la gën a jege dafa lay jël su fekkee bi la jege beneen mun na la jël transféré la feneen cest juste pour que ñu déglu la xam lan mooy problème bi c'est court et que tapez sur votre téléphone votre smartphone vous demandez comme ni ngeen di demandé yeneen soxla yi ngeen am laaj lan mooy numéro vert police lan mooy numéro vert sapeur pompier c'est automatique ça va sortir et loolu daf leen di dimbali pour que ngeen mën a woote def pour man en fait sincèrement dama jàpp famille boobu ñooñu doon ñu doon expliquer li xew ci biir kër gi dañoo def benn délit bu nga nekk parce que dañoo parce que dafay mel da ngaa complot ndax waroon nga mun a woote woote woo kon yow complice lañ lay jàppee donc ñoom peut-être def nañ bu nga dexee na xamuñu woon wala maanute lañ doon ay bureau yow ngay mën a nettali nit ñi di wax ne xam nga ñooñu tàmmuñu xuloo tàmmuñu xeex kon boo fa déggee lu étrange waroon nga yëg xool lan wa ilaa nga woote pour au moins wut wàll donc bref juste pour wax ne affaire yi bëri ay contradiction mais man dama ki rey euh, ki nga xamante ne moo rey Wally peut-être moom moom moo rey euh, ki nga xamante mooy mooy Aziz dafa laa nag laa gën a jàpp ne moom lañ njëkk a rey li tax ñu rey ko peut-être xëy na bëggoon nañu am dara ci moom et tout ça ñàkk nekk doo ko jaayante na ñoom ñu et que demandé témoin que bi ñuy rey Aziz xaw ma je sais li sama xel jox ma mooy Aziz torturé dañ ko laataa ñu koy rey cest kuñ torturé la ñu koy rey Aziz au moins forcé nañ ko et tout ça naam xoolal coach man loolu moo tax ma borom cap bi ñu jàpp nii parce que xeex dafa am te euh, man bi ma ko dugalee sama ordinateur di xool nan la doon nooyee xam nga mënu ma woon détecter kanam gi mënu ma woon gis kanam gi parce que xeex bu amee faaw gaañu gaañu am te fii wam yëpp sénégalais yi gisuñu ko fii wam mën na am dara lu lu ci gaañu wala dara mais dafa takk kap yow na lañ lay interviewé bëgg lu leer ngay takk ay kap loolu tamit ça ne sonne ba ba pare ba pare du du xo affaire bi ñoom ñi ñu interviewé ñu boo dee seet waa def tent bi kase ko ngay gis mu xool jaxaran caméra je sais mooy waa ji nga xamante ne doon na expliqué naan papa Medina seen xaalis moom nga gis mais ñëpp da gis ne à court tour la ñuy def maanaam dañuy xool kaw xool suuf xool kaw xool bon je sais pas mun na doon nag complexe am na ñenn ñoo xamante ne devant la caméra mais mun ma ko gëm pour des artistes mun ma ko gëm pour des artistes mais mun na nekk ay complexe je sais pas allahu alam mais quoi qu'il advienne mooy cest à bi il faut que ñëpp comprendre que ni lii man jàpp naa ay suspect ay nit yu ko jege ay nit yoo xamante ne du début jusqu'à la fin dañ siy dugal seen loxo ba Aziz de soit dañ ko jaay wala soit ñoom ñoo jël seen responsabilité rey ko mais li lay Abdoul Aziz ak Waly yi génnul si ñoo xamante ne dañ ko doon fréquenté génnul si ñoo xamante ne ñu miinante ñoom la xam nga nag Awus damay dégg ay ñu bëri di génn naan yenn tur yi ngeen di tudd et tout ça il faut que ma leeral leen ci yëf nit ñi xam lan mooy loi maanaam suspect dafa dafay loo xamante ne justice mënu ko ñàkk tey Awus man ak yow bu ñuy ànd su dara xewee mooy justice man lay njëkk a def suspect rawatina su fekkee maag yow ñooy bokk di fréquenter et tout ça justice man lay njëkk woo man lay déglu suspecté nit nekkul accusé nit xam nga nag peut-être ñun dañoo am problème mu moo yi ba ku ci nekk yenn interprétation yi ni ñu koy defee mais dañuy faral di wax ne su dara xewee d'abord soixante douze heures balaa bis bi soixante douze heures après bis bi ñi nga xamante ne ñooy lëkkaloog ngeen ñi ñooñu il faut que justice mu woo leen il faut que justice mu xool leen il faut saytu leen te boo dee seet ki nga xamante ne mooy Aziz Dabala dafa am ñu ko jege woon ñoo xamante ne moom la ñoom la daan nekkal de temps en temps te ñi si gënoon fës bokkoon na ci Soukayna bokkoon na ci ki nga xamante ne mooy Yérim bokkoon na ci Maguette Seck par exemple ay ñoom Boga mais bokkoon na ci xale bi nga xamante ne tey moom moo génn àdduna muy waan et que ñooñu la ëppoon ñoo xamante ne dañuy fréquenté ak ñoom rawatina nag fee bi am ay nit dañoo wax olof dafay faral di wax ne bu dara xewee rek wax yenn wax yi il faut que ñu comprendre que ne yenn wax yi ay baax sax pour justice parfois mu mun a am ay piste d' xam ne ni ñi wax nañ mu déglu leen loolu dina la dina ay suspect ba de telle sorte que dina mun a woo ñenn ñu wax mais xam nga wax yi am te wóoroo xam nga Ousmane sincèrement dama dama dama am jàngat moo xamante ne dama ko jàngat ci bi ma déggee ne par exemple kii di Soukeyna nekkoon na kër euh, ki nga xamante ne mooy Aziz samedi bi ci boppam. ba rawatina aussi dimanche bi nga xamante ne Aziz dafa feebar moom moo ko gunge moo ko yóbbu hôpital bi muy ñëw moo ko tayle kon donc kooku ku taxaw ci Sénégal naan justice waru ko woo dama yaakaar da ngaa xamul lan muy waa ak lan mooy yoon dèjà kooku kon dafa wax ci premier suspect yi nga xamante ne justice war na ko war na ko laaj mais rawatina ñu gën a boofu que ne diggante samedi bi dafa nekkoon na ñoom bien vrai que ne samedi bi man dama ko dàq xam naa ne samedi dara xew fa lii xew awus mu ngi commencé ci dimanche lundi mardi et que li xew dëggantaan mu ngi xew lundi dinaa si ñëw léegi léeg taxaw seet li tax ma ne li xew mu ngi xew ci diggante dimanche lundi mardi dimanche Aziz dafa feebar ñu dégg xaritam mu wax ne nekkoon nag Aziz ba 19 heures après la dem et que kooku mooy premier suspect bi may wax kooku li tax ma def ko premier suspect Aoush kooku dafa wax benn wax boo xamante ne naka la yow Aoush nga nekk sama xarit nga feebar ba moo mën a nekk ak yow mu waroon mën a am ñàkkare yow nan laa la bàyyee. ci yan coono nga nekk rawatina ñu nekk ci wàccaayu màggal nga xëy yow mi nga xamante ne maa nekkoon ak yow ba 19h ci sa